Euh, Dalo ci euh, Dakar Arena ci Diamniadio ñent équipe ñofi tew Égypte Kenya République démocratique euh, du Congo tournoi bu ndaw la xeetu Afrobasket la rek Danaka, mën nga ñu wax maître Babacar Ndiaye bala ñu sori ndax lépp yëm na ci wala organisation équipe yëpp tew na ñom tewuñ ak am lu mankem am lu dess wala. Ah, merci Babacar équipe yëpp tew euh, pour quatre équipes quatre équipes pour le Sénégal mais tournoi le monde a organisé organiser regrouper à la fois la poule du Sénégal et la poule de Tunisie donc il y a huit équipes à Dakar donc à raison de quatre matchs par jour à partir de midi donc de midi à 23h il y a du basket à Dakar Arena le dernier match. kon huit équipes ont fait 8 huit équipes ont fait teew ñaari poule ñoo fi ne. poule Sénégal ak Tunisie parce que Sénégal ne tête de poule la Tunisie aussi pas tête de poule. a poule yi pour Nigeria ak et Angola ñoom joué nañ en Angola c'est le premier tournoi au mois de novembre. donc équipe yëpp ñëw tout se passe bien toutes les dispositions jël nañ ko et Inshallah, midi dinañ commencer par le premier match Rwanda contre Soudan du Sud en fait ci euh, lu jëm ci euh, lion yi nga xamante ne ñoom lañ convoqué woon est-ce que ñëpp teew nañ. waaw ñëpp teew nañ ñëpp ñëpp man regroupement laa jógee nii. Mhm. donc ñëpp teew nañ tout le monde regroupé au complet même euh, réservistes yi sax ñu ngi foofu au cas où xam nga situation sanitaire bi kenn xamul les trois de ces réservistes ñu ngi ñu ngi si hôtel bi waaw situation sanitaire bobé sax yan disposition ngeen ci jël ndax euh, souvent ñi nga xamante ñom ñoy ñooy euh, club dañuy veiller à ce que ñom ñu nek ci walum karangé jamono ji nga xamante mbass ma ngi lembé aduna donté sax on a remarqué une tendance baissière des des cas. wa dék waaw xam nga tournoi bi c'est équipe bi bill lañuy nek mhm. moy hôtel yi ñuy nekk kenn du fa dugg Sénégal.

Mhm. yaa ngi wax réserviste gis nañ football normalement euh, équipe yi 23 jours la war di Coupe d'Afrique waaye euh, may nañ réservistes officiellement ci liste bi lañ bokk wala dañ leen a rek bu manqué ñu indi leen ndax euh, normal mooy équipe bu joueurs ak ñaar 12 joueurs. bokkuñ si liste bi 12 jours, comme bon réserviste mën nañ wax rek comme remplaçant au cas où donc officiellement, officiellement ci compétition bi ñëw nañ nag regroupement euh, dinañ euh, leen par exemple la prime de participation au regroupement maintenant su fekkee ne am na pépin ñaanuñ ko yàlla le allah euh, bon léegi sax mënatuñ remplacer parce que dès l'instant où boo joxee la liste des 12, on l'a donné la liste des 12 hier les réunion technique bi donc mënatoo remplacer beneen joueur def nañ test si. ñëpp même bu amee blessé mënatoo dugal keneen. mënatuñ dugal keneen donc léegi def nañ test si démb mu ñëpp négatif donc entraîneur bi jël na douzeam maintenant naa estimé que xale yi comme bi ñu ñëw ñu ngi fi ñu bàyyi leen ñu seetaan tournoi bi pare door a ñibbi parce que ñoom ñëpp Europe la ñu mhm. léegi euh, Sénégal xam nañ ne am na ay joueurs yu mag euh, waaye góor gi si Dieng moom ñëwul lu tax. waaw lu tax ñëwul parce que NBA ñoom duñ libéré wuñ seen joueurs yi période bi donc joueur NBA ak joueur Euroleague Gorgui Sy day ñëwul mais kii aussi ñëwul Ibrahima Fall Faye bi nekk Monaco des joueurs Euroleague ak mu ngi mel ni ak ak ak Piera donc am na jour yi nga xam ne nii compétition yi nga xam ne nii euh, suspendu leen parce que xam nga bu ñuy def fenêtre yi FIBA day suspendre tous les championnats sauf maintenant la NBA ak ak Euroleague. lu tax loolu. ah la règlement c'est entre. FIBA NBA ak Euroleague. waaw ah, léegi NBA ak ñoom ñoo ëpp doole FIBA kon parce que gis nañ ni FIFA bu dee ci wàllu football bi bu équipe nationale yi soxla fu jour bi mënti toll buñ ko woowee day ñëw par force bu bu ñëwul ñu ñu teg daan club bi bi ko bi ko bëgg a lu tax euh, FIBA moom toll noonu NBA bu ko neexee téye ay jouram am. NBA bokkul FIBA c'est c'est simple NBA moom c'est un organisme indépendant la bu nga xam ne nii bokkul FIBA. donc lenn rek nga mën def waxtaan ak ñoom si tout le temps loolu la eh, boo xoolee sax la. mais loolu waruñ ko defaraat waruñ ko xoolaat. waaw loolu nag Babacar waaw loolu de peut-être c'est un problème qui peut peut-être être posé mais xam nga voilà jour NBA yi moom d'habitude sax du jouer préliminaire ah, parce que xam nga euh, préliminaire ni qualification euh, joueurs yi ngay considérer peut-être Gorgui Dieng fait partie des rares joueurs NBA yi jouer des éliminatoires sinon ñoom dañuy xaar toujours ba afro basket mbaa Coupe du Monde ñu a mais l'essentiel c'est si am solo bon équipe bi c'est vrai am na ay cadres yu manqué parce que Maurice ñëwul Ibrahima Fall Faye ñëwul góor gi ñëwul mais l'essentiel du groupe bi demoon Afrobasket mu mais Égypte aussi dafa indi son équipe au complet donc match bi ñuy am tey Égypte du nekk match bu yomb ñu invité tout le public ñu ñëw incha allah fekkee si ko jàppale équipe bi pour ñu am ndam parce que l'objectif bi ñuy organiser mooy faire en sorte que ñu gagné ñëw trois matchs parce que tournoi bi bi tournoi aller la suñu un tournoi tournoi retour au mois de juillet en principe en Égypte les trois premiers de chaque poule sont qualifiés. Nous ñu les trois premiers de la poule de la Tunisie nous formons une poule de six euh, ñu la même chose pour la poule du Nigeria et de l'Angola donc euh, deuxième tour ça va être deux poules de six buñ paré équipe yi tax va poule duñ deuxième tour parce que joué au nañ donc ñun on va rencontrer les équipes de la Tunisie au deuxième tour sont qualifiés suñu paree match les deux premiers de chaque poule qualifiés mu ak le meilleur troisième muy cinq équipes ñom qualification est maintenant na ah. wa dafa parce que aussi c'est comme ça parce que dañu bëgg def comme au football au départ l'idée c'était de faire des matchs aller-retour mais c'est coûteux quand même aussi ñu n'avons nañ ko def sous forme de fenêtre mais c'est c'est quatre fenêtres pour se qualifier attendant, di ko que dem deuxième tour match yi nga gagné point yi nga am premier tour aussi donc il y yobale day nek genre système play-off moo tax mu am solo nga gagné sa match ci premier tour yi. Mhm. Euh, cadre yi euh, yenn ci kaadr yi ñëwuñ comme ni nga ko waxee ñoom euh, Maurice Ndour góor gi si Dieng ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom ñooy tàggat équipe bi aussi adduna bi moo gën a fës est loolu indiwul quelque part li mu wàññi ci équipe bi. waa xam nga même bu ñuy dem afro basket préliminaire aussi non la ñu parce que euh, pas bi mo yobone équipe bi. au Cameroun paa bi. waaw te Boniface moom mooy sélectionneur titulaire. wa mooy sélectionneur mais. NBA Boniface Boniface euh, nekku fi instant bi. waaw côté. mo parce que libéré wuñ ko club am libéré ko c'est l'accord qu'on a convenu avec lui et son club préliminaire pas bi mom moo koy def après parce qu'il faut aussi former nos entraîneurs locaux, les responsabiliser. Donc, nous l'avons fait en 2019 et ça avait marché. Donc, on a dit que, puisque l'équipe s'est bien comportée à l'afro-basket, un groupe de neuf de nouveaux joueurs de médaille de bronze, ça ne sert à rien de changer pour changer. Il faut peut-être nous mettre aussi entraîneur, puis nous d'ici l'afro-basket 2025 avec ce groupe-là où la moyenne d'âge peut-être à 22 ans 23 ans parce que ça ko on l'a 9 jours de baisse, on la ñu yóbbu Kigali ñu ñu comporter médaille médaille de bronze donc on a le temps de travailler voilà pour pour le futur pour basket mais est-ce que li ñen def noonu wóor Euh, am accord bu nga xamante ne def ngeen ko ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal entraîneur euh, principal bi euh, bu gàllankoor amon wala ki adjoint bi amoon indisponibilité dara lu ko tee ah loolu nag moo xam nga ni parce que yaa moom yaa aussi rawal le directeur technique national adjoint ñoom bu adjoint bi amoon galangkor, dinañ hmm. trouver solution mais yàlla baax na amul gàllankoor li si am solo rek mooy lii moom lañ defoon daaw moom la ñu reprendre ren lu ma ko permettre à l'entraîneur de vraiment mu parce que ça ne sert à rien aussi de changer les entraîneurs à tout le temps et que Inch'Allah, avec euh, ce groupe là suñ sous suñ temps liggéey d'ici 2025, mille vingt yàlla mën nañu may ndam. Mhm. Euh, basketu euh, Sénégal nag moom gaa ñi dañoo gëj a coupe d'Afrique, Afrique bi li ñuy woowee afro basket biñ ko organisé 97 fii ci réew mi xawmatuma sax ñaata at la bëri na euh, yéen dirigeants yi fédération bi dem coupe du monde ak jël afro basket ban moo ci seen mëbët objectif bu njëkk. waaw suma ma sañoon ñaar yëpp ah, euh, dem coupe du monde euh, jël afro basket parce que aussi il faut que nit ñi xam ne deux coupes du monde yi passé yëpp Sénégal qualifié na 2014 ñu ngi woon en Espagne. 2019 nous avons en Chine. quart 2014 l'Espagne Espagne éliminée. éliminé. Mhm. donc 2019 qualifié également également coupe du monde troisième qualification de suite nous avons visé loolu li Sénégal effectivement aussi depuis 1997 nous gagné. mais il faut que nous nous que le basket Sénégal mosu ko dominer comme avons dominé dominer basket jigéen avant 1997, le dernier afro basket bi avons gagné, c'était en 1981. Donc on est resté également pendant longtemps avant de gagner. On a été champion d'Afrique cinq fois de, 1960 à maintenant. Donc ça veut dire que c'est l'Angola, moi gagné plus de Fukion, moi vraiment le champion, le champion d'Afrique. Donc nous sommes dans ce qui Mais l'Islam Solo aussi, nous sommes dans le top du basket africain. Deuxième, troisième, chaque fois nous jouons demi-finale, match de classement, nous sommes Coupe du Monde. Donc on est également même à chaque fois a une compétition mondiale on est présent petite catégorie bu ngeen gisee 19 euh, qualifié on est dem quart de finale coupe du monde donc on répond présent maintenant objectif comme nous l'avons le ko c'est de gagner l'afro-basket. mais pour cela aussi il faut nous dire le temps on a créé un groupe bu nga dire le 2000 novembre 2020 Nous avons nañ jël temps Inch'Allah, pour 2025 quitte à même organiser l'afrobasket à Dakar bon loolu nag dafay du nga xam ne il faut ñu waxtaan si autorité étatique yi parce que ça demande beaucoup de moyens mais je pense que bu ñu ci waxtaanee ak le président de la république ak le ministre Matar Ba yàlla dinañ dinañu mu tët jox autorisation pour ñu organiser di di le ministre Matar Ba parce que organisation bi bu amee aussi moom moo moo ko autorisé non seulement mais moo si jàpp bu baax a baax bon bu ma diree que dewaaram la def mais aussi. Euh, bi ma demee wax ko ne ko dama ñu bëgg organiser parce que pour ñu qualifier il faut lii il faut lii expliquer expliquer ko il m'a automatiquement il m'a donné son accord il a pris toutes les dispositions pour que le tournoi se passe bien. mais est-ce que jotut yéen dirigeants yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor équipe aussi euh, ñu jox leen ab sas maanaam ab contrat de performance comme niñ ko defee ci football bi. Euh, écoutez yéen yàgg ngeen fi lii mooy seen objectif boo leen ko deful itam ngeen ngeen jox place bi ñeneen non xam nga mënoo def doon parce que élection la pour problème de mouvement associatif la donc euh, bu ñu demee élection. ku club yi ñi nga xamante ñoo yor euh, club bi. waaw euh, non non waaw ñu yor équipe bi encadrement technique bi. mais résultat bi ñu def bonul. parce que qualifié nañ ñëw nañ ba jël médaille de bronze ñëw jël 3e dans une pour xam nga gagné gën a intéressé médaille waaw waaw xam nga xam nga gagné Babacar Georges gagné si dafa dafa yombul boo vivre compétition internationale de l'intérieur. day xam ne gagné dafa ay ay détails ay facteur ñun suñu yoon. Rwanda boo détails yi moom basket da cee raw quoi. non non dama lay expliquer rek. par exemple non je veux dire euh, gagné ak ñàkk ci match basket. ci détails yi dafa dafa sew. da ngay ñëw doo am réussite ci hmm. paire. c'est un facteur chance bu mais même boo jëlee tirage bi ñun bu ñuy nekk di tase Angola quart de finale Côte d'Ivoire demi-finale boobu Tunisie mu ngi am Ouganda mu ngi am Cap-Vert demi

Pour ni si la suñu génnee couragement pour A contre pour C B contre D sacré yu nga xamné ni man pour man deuxième tour suñ fa ñëwé dañu wara a tirage même s'il faut faire un tirage dirigé mais dès l'instant où on ñu tirage bi ba après tout est connu d'avance par un système de da fay tax lu nga xamné ni voilà donc facteur chance. bi de défaite bi demi-finale contre Côte d'Ivoire ci afro basket bi passé Match na trop. oui match na trop ne la ñëpp parce que euh, pour dire vrai on ne s'attendait pas parce que l'équipe l'équipe dafa planer ce tournoi bi ba match mais l'autre aussi le ko waral quart de finale difficile contre l'Angola parce que toujours même le match contre l'Angola il faut révéler comment jouer contre le Sénégal parce que l'Angola c'est une grande équipe donc tactiquement ils nous ont étudié donc quand les autres viennent après ils ont reproduit ce que l'Angola a fait donc euh, mais vous mhm. xoolee Angola c'est un grand pays africain de basket Angola a gagné le Sénégal depuis des années waaw donc nañ ko mais euh, gayndey football yi jaloore gi ñu def jël coupe d'Afrique est-ce que mën def dara ci basket yi ci sen bop ak sen taxaway am waaw normalement gaynde football yi li ñu def dafa war même en général toutes les autres disciplines euh, di booster aussi voilà tax aussi état bi mën a disciplines non les gosses sont conscients hein, les gosses sont conscients xam gagner ñëpp je pense que euh, n'ont pas besoin que les footballeurs leur donnent l'exemple on a l'habitude de gagner au basket aussi ça il faut le savoir ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, mais comme nous l'avons aussi, on perd, les trois derniers Afro-Basket, on a perdu en demi-finale, et c'est des détails. En 2015, à 20 secondes de la, de la fin du match, nous avons une balle de match, égalité, nous avons une balle de match, nous avons une prolongation, perte. La même chose, nous avons contre Nigeria, on perd les demi finale c'est 1, 2, 3 points. Donc, même si beau le match contre la Côte d'Ivoire, est-ce ça ne ferait pas Parce qu'il y a 10 points, mais ah, quelques secondes de la fin c'était un point maintenant nous avons fait def ay fautes pour pouvoir demander euh, ñoom demande yu ñaan raté pour nous dougal, mais nous ñu dugal seen lancer franc euh, mooy wane on a le niveau maintenant c'est des détails détails nga je pense que nous waxale ku yàgg si que nous avons la fa ñu ñaan yàlla rek incha la que la prochaine fois sera la bonne. mais détails yooyu euh, yeneen détail ci biir instance dirigeante du football bi xiiroog a yooyu am yenn est-ce que duy impacté ci équipe bi. non moo gis nga dégg kiro waaw gën a gën nga gën nga dégg xuro kiro ngaayo te gis nga man tamit ah, mosoo ma dégg tanjan bàyyiwul de baba tanjan sa mais xam nga man mosoo ma dégg ma xulo donc xam nga man dañ ma fal avec un objectif après ñu ñu falaat ma amoon sax adversaire donc xam nga baba tanjan neena ayo loolu wax waaw ma <laughs> non babacar bu ma dugal li may wax rek xam nga man damay wax des faits gagné neen champion d'afrique dem neen jeu olympique dem une coupe du monde fii def la meilleure participation du Sénégal dans l'histoire en Espagne dem nañ deux fois coupe du monde euh, garçon donc loolu mënoon wax ne le Sénégal Parce que bi doxul dem coupe du monde en 18 donc le basket marche donc mais comme la nga wax rek ñun ñëpp ko bokk ku nekk mën nga joxe sa mais mon rôle ce n'est pas de discuter de polémiquer avec les gens parce que dañ ma fal pour ma liggéey ma joxe bilan bilan laa présenté woon en 2019 ñu réélu ma par acclamation donc mon rôle c' est de mhm. en sorte fi ñu bëgg a jeexalee Babacar Ndiaye euh, mooy euh, tournoi bi door tey euh, gis nañ ngeen def ci publicité bu bëri bëgg nit ñi ñëw seetaan si ndax di ngeen leen yombalal dem gi ci jam ñaajo xam ne ñu jam ñaajo sori na ci waa Dakar ak ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañoo seetaan si jóge feneen. waaw dinañ yomb parce que signé nañ benn convention ak euh, dakaar dem dikk am na ay places yu nga xam ne ni ay bus dinañ fa jógee dem Dakar Arena mais également dinañ placer des bus à à la gare ñaajo Diamniadio gare terre bi nga xam ne ni ku jël terre bi boo wàccee ñaajo boo wàccee Diamniadio euh, am dina am tout les trente minutes toutes les trente minutes bis buy départ si gare bi pour dem Dakar Arena donc pour acheminer nit ñi donc loolu c'est des dispositions pratiques yu nga xam ne nii jël nañ ko. Mhm. ensuite comme week-end le samedi dimanche tey sax mën nañ wax nit ñu mën nañ ñëw en famille vraiment yendu dina buvette yi les buvettes sont ouvertes nit ñi dinañ mën a jënd añ reer indi seen famille vraiment jàpp si bu baax a baax a baax pour ñu pour ñu am ndam. jërëjëf maître Babacar Ndiaye président fédération Sénégal bu basket euh, fenêtre.